Nous bëgg di liggéey en co-construction Nous euh, nekk xam nga ne euh, au pouvoir dañoo indi un modèle économique muy la substitution aux importations Nous orientons notre politique ci un développement boo xam nous dañuy un Sénégal souverain juste et prospère kon ñaari condition yooyu mënula am fekk lëkkalewuñu ñun secteur bi ñu yore muy microfinance ak économie sociale solidaire ak secteur bi nga xam ne sama ñaari collègues yi ñoo ko yore muy industrie bi ak PME yi kon ñu gis ne bëri na ñoo xam ne ñu nga liggéey ci yenn secteur yoo xam ne ci gën ci biir économie sociale solidaire si nous ko lëkkalee ak industrialisation bi dinañ am ay niveau yu uute waaye yu lëkkaloo ci biir processus d'industrialisation bi ñu di wax un développement industriel inclusif durable par l'économie sociale et solidaire C'est mooy lëkkale bi ñu bëgg a def ñaari département yi kon loolu de lu am solo loo xam ne son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak le premier ministre Ousmane Sonko dañ ñu ko waxoon ca njëlbeen ga ñaari premier conseil des ministres dañ ñoo invité à avoir une solidarité gouvernementale et une co-construction ñaar yooyu nag moo tax tey ñu ñëw di dëggal loolu di ko xaatim ngir buñ ci jógee ñoom ay action yoo xam ne dañ ciy xel uuteeg yi nga xam ne kenn ku nekk xëj na di ko def ci sa waaye day am yoo xam ne dañ ciy xel di daje moo tax lépp loo xam ne ñun fas yéene nañ ko defati muy am jeexital ci commerce wala ci industrie dootuñu ko def ñun rek dañ ciy ànd ak ñoom ñoom it ñu fas yéene ko defe noonu lépp loo xam ne ñoom bëgg nañ ko dëggal ci industrie bi ñuy sóoraale ñu nekk ci ginnaaw maanaam ci économie sociale et solidaire boobu kon loolu moom moo sabab daje bii ñu def tey muy daje boo xam ne buñ ko defee kenn ku nekk indicateur yi ngay dàq ci sa stratégie ak sa planification dafay dal di gën a yomb kon loolu moo nekkoon li nga xam ne euh, dama ko doon sànni di gërëm encore une fois sama collègue la docteur Serigne Gueye Diop ci proactivité bi ak ci coactivité ndax il a beaucoup de coactivité di gërëm équipe bi nga xam ne yépp moom la àndal ndax liggéey bi yomb na gaaw na efficace na te loolu rek la ñu le président et le premier ministre sant